tubaarikàl la mu def darab couvre lii darab bi xew am muusam am ñaari njegenaayam tubaarikàl am darab bel na ca kaw bëgg rek tubaarikàl la macha allah ngay lalal xaas ba mu nooy nepp ngeen ko jàllal ne tëb dem darab ci diisu tubaarikàl la peñe dox daje tubaarikàl la lu nekk ne ni ci biir am na parfum am na lingette am na nuisette am na ñuusa la toog ñuusa la toog am na baal doxaan am na baal wëri anti yooyu yëpp am na dematuma am na takkatuma lépp ngi ci biir toog biir biir ci yow am na lu tax ñu ñëw ci yow. Abdoulaye Diop xalaat tubaarkalla. ku ne xam ne nii nii laa pël. sama frère barki dem boo ñuy tubaab tubaab des kii. ñun bu ñu ñëwee ci yow. baa ngi nii de mi ngi nii borom dibiteri bu baax waaw yaa ngi siy waaw soo si mel noonu la soo si weñ. soo si weñ nga doon soo si weñ nga doon. nit du yeew nit xol la te xol yi jikko. sëñ bi balaa nga si di ko laa a toppee si di ko laa bëggee nee naa la man wër naa àddina doomu laa xam liggéey naa boobu télévision investi ci plus de cinquante millions doog laa xam. dégg bi ma lay xam maa ngi doog a am sama quatorze oto. lu ma la toppee sama takkoo yi bu dëgër bii takk sama nit bi di xaar yu di buuxante mel ni sécurité lu ko waral. ah cent la bu ma yóbbu ba deux cent mille. déedéet jamais la vie. xam nga la. jikko Serigne Saliou Mbacké Dior nit koo xam ne bu subat xonkee moo ci gaaw nit koo xam ne boo xewlee moo ci gaaw nit koo xam ne boo bëggee moo ci gaaw boo amee naqar moo ci gaaw lu mu la naka dugg dugg xël la dégg-dégg xël la kat ba xël la njàpp xël la waaye misi a gaaw wàcc ma daan naa la warul ku daan na jëy féete kaw kenn borom xaas nga naa ko